ñi ci wor seen xarit bi di si Abdou Nugum Nugum borom ngay ngay ak forox lay 100% bawol bawol 1000% sa tuba juddo hôpital Seigne Modou 2330 ma ngi leni beug bëgg di leen wax ngeen ko ne abnay ma ngi kontaan ci yeen ci sem yek vie yek lepp gor gor leen ci entraînement rek may ma doole ci fépp waye dama ñewoon nak ngir rek ñoo xol ba xam rew mi li fi ne c'est obligatoire wala c'est obligatoire wala c'est nangam nangam wa rew mi ni leen koy bàyyi lomotif yi melni ni tuleeg male wala motif mom légui day actualité ba nga xamni wéru dé wone dana wu ne danoo war a am lomotif buñ barkeeloo man de waar naa ci lomotif damaa jot ci lomotifu Nday Njaay bii feccal Sidi Diop ma gis mu génn xëllaam wii waa ji di ko góorgóorlu ne ci awraam wi mel na ku ne ci farata ñuy góorgóorlu Nday Njaay li nga góorgóorlu ban da waa ji nekk ci yow di góorgóorlu boo ko góorgóorlu woon ci fecc mii da nga doon la de fecc waa ji li mu góor ci sa ci sa suuf gii bu ko góorgóorlu woon ci ci ci jaamu yàlla léegi léegi tey ñu di ko ran waa ji moom def na erreur ndax booy film ba mu gis téléphone bi xam na ni jigéen matut mënoon na laa wax ku baax vidéo bi tee ko ndax aduna da trade man nga ko te djum dugal ko sen groupe famille bi wala dugal ko sen groupe daire bi wala yooyu nay njaay première heure nan ngay doone jigen si mi basset ak ku dul sa borom keur heure bi jiitu moy lan motax ngay tal telephone di filma sa bop man nit bu dee sey ñu filma ko ta te filmawul bopam sax duma ko yedd waye nak ngay filma sa bop mom moy première weer sa bop te jigen yalla dako wormal alcorane yalla yàlla indi fa turi jigen ba tey suratu maryama suratu yu baree bari yoo xam ne ay jigéen la yàlla tudd leen ci alxuraanam ji jigéen ni ko yàlla uh, waggare teg ko ca kaw nga ñëw di wàcc sa bopp amoo boroom kër ñu lay xàlli xàlle li ma gën a naqari mooy sénégalais dañuy def ba noppi bañ ko wax yaa ngi def erreur ah, ba aadamoo dugg ci maa ngi dégg ngay jéggaloo lu ne nga dugg ci nday njaay baalu àq bàyyi àq moo koy moo ko moo ko gën baalu àq bàyyi àq ko gën dëkk def yaramu nen nag te dëkk boo yenn ñuy waxtaane sa taar loolu fasunaaru góor rek la jik bo nekete ci banex del sóoraale euleuk amna lu meuna xew vidéo bi nee nga na ben audio ñu ni xawma wax xamoo ko ko tas xamoo ko ko nang ya ko tas nak li tax nga tas ko moy manam sa cieur yi bo nekke ci douce dong ba teju war nga tit nit meuna ñew yeur la gis la waxtu bana nga nek fo xamne dara neexu ci yalla ba ngay kalkin di di di vidéo di nugum nugumi nay ñaasan li lu ko fi jar tay ji xeyna ma maa jot gis naa beneen lomotif bu bes ab barke Xaadimu Rasuul man dal ma waru ci rew mi senegal ñu ngi joy corona jooyu couvre-feu di jooy waxi Moustapha Diakhaté ji pareeguñ amaat problème mu sexe coowul sexe nag moom mooy tëj Sénégal gis nga lu bon yii ñu nekk ci réew mi buñ ko moytu bu subaa ci ngoon waa ji sax suufle gi dana na ko firiib nag ñëpp gaañu àdduna bi tukki ayam bon gi ci senegal nañ ci wax bu teyee kii wax li yonent bi bu subaa ñu ni couvre-feu bu subaa ñu ni Ousmane Sonko waruñ koo tëj problème mu massage bu ëllëgee nag léegi problème mu sexe la ñu tay ap pa lañ ma wan paa boo xam ne mi gor góorgóorlu ci ndaw si ñu koy filma di ko wax ju ñaaw jo xamni pa bi di gor lu, ni ku ne ci liggey bu baax di góorgóorlu magum jëm bañ lay film lolu koku bu ko ay sëriñ gisee wala ay doom lu mi wax li ma na xari muy sey sol mbaxana muy sey bu nopp sol mbaxana ap pa di sey sol mbaxana sey ak sol mbaxana ah. ta mbaxana mi sol ni mu ko nga xamni ne bari bari dañ koy sol di takki ak dem di dem ci rob ak lu ne ah. muy ngang ngang ngang kinam bu wex bi di gor si mi ku ba set ci magum jëmm doon muskàllaf ba àdduna sosoo ba léegi nag maa ngi door a gis lomotiifu muskàllaf lomotiifu muskàllaf nag comme mi ngi am Sénégal gi bu yow ñoo xam ne àdduna bi li mu tukki corona nan fexe nu mu demee te moytu ni ko lomotiif yi waaye ñun tey ñoo toj apartement yi nga xam ne kenn newu ci hôtel yi ten ko interdit man dama tiit ci àdduna bi coowul corona lu ne ñu ko coow léegi nag problème mu sexe lan yor Sénégal problème mu sexe mooy suñu problème awra yu dul jeex guddeeg bëccëg suba ngon coowul awra yi kenn ku ne nugum nugum it jàpp sa suuf japp sak suuf rof ci sa suuf ak morom yaakaar ne gur mooy ngóora góor bala am jamu yenn gor ñu bon ni bala am jamm faaw nu japp seen ak suuf rek rof ko ci suuf ak jigen jigen ñi ñi ñi ci bon bala am jamm faaw nu gis ak ak suuf gu baye ko ci tubey tabbi ci seen suuf lolu moy aduna lolu moy senegal baax na lañ dem ta bo waxe ñi dala saga ñi dala def nangam ñu bon ni dañuy commentaire lu negatif waye li ne wax xam nga ni deug la réew mi ay caaxaan santu ko réew mi ay caaxaan santu ko problème corona bi bala fay jóge coow ciy mujj billaahi buñ moytuwul réew mi waxuma la corona waaye nugum nugum naa sax dana ñëw ci réew mi corona bu ngeen sàggunut bu mbon gii bu ci kilifa yi waxut bu mbon gii jàll rakke corona ci yoon yi di ñëw xaw ma jarbaatam lomotif yi dul jeex problème mu awra rek Sénégal daal awra rek lomotif lomotif lomotif lomotif lomotif ba kañ lomotif téye moo ci des baax na àdduna de àdduna de ñi war a wax bu ñu waxut ñi war ta wax wax te ñi war ta wax saa bu ñu waxee wax lu mënta dégg kilifa yi nañ gën teg ay daan ci lomotif ndax lomotif dafa mel ni actualité la lomotif moo gën a bari garabi ndoxum siti yi ni ngay taale yi dégg sëriñ bu ne naan maamoon ndoxum siti maa ci sut lomotif a gën a bari garabi siti yi fi mu toll nii ah, bu ci kilifa yi wax rek man de paa bii nu ma am waaye moom daw na sama yaram yi lool paa bu weex tàll bi jaw di sëy ak moroomi doomam ñu koy ma boole koog di ko ci waxal wax ju tegg nuut ah, nday ñaay maa ngi lay ñaanal lii yàlla nga am xolub muñ ko waaye erreur nga ci def yàlla nga am xolub muñ ko te sénégalais itam ñuy suturaalante man de vidéo bi bi ma ko jotee envoyé ma ko kenn waaw envoyé ko kenn dama ko jot mu naqari ma lool ma koy daal di jëm a dindi lépp waaye erreur bi nga def daal mooy erreur de marketing moom erreur de marketing bu mag nga def comme yàlla dogal na yow da ngay sëy da ngaa mën mën mën maanaam mën ngaa fexe ba góorgóorlu am ku lay tiim dina def dara fexeel ba mu yem seen diggante bu ngeen paree sangu kenn ku ne dem waaye nag di ko vidéo ko téye ak di ko kalki naka dugal ci groupe ak loolu ngeen nekk ci di ngànge ngànge ba àdduna bépp jot ci ñaaw ma sañoon sa vidéo bu nekk YouTube it vidéo bi ngay fecc lay doon comme mooy sa métier say sët buñ màggee euh, am histoire boo xam dañ naan suñ maama mënoon a fecc ak nangam waaye suñ maama mënoon a fa fawum suuf moom loolu moom gor su ne war na ko moytandiku suñ maam moo dàqoon a fa moo dàqoon a lobatif wala yooyu yooyu moom maa ngi la koy jéggal te dina ko jéggalu moytandikul yooyu àdduna amul solo te lépp teranga la Sénégal moom réewum teranga la waaye daal lomotif moom na ci kilifa yi jël ay ay ay ay kii ay décision waaw nañ ci jël ay mesures barrières ak ay nangam nangam ak ay ñasaw ñasaw man nag mënumaa boole am naqar ba noppi di ko di ko téede li ma naqari nii faaw ma wax ko kenn ku ne nag yaa am sa gis-gis nu la neex waaye commenté.